série L'1 jury 17 19 numéro 172 007 Alioune John mention passable lycée Amadou Ndak Seck numéro 171 926 Aliou Mangane mention passable lycée Amadou Ndak Seck numéro 171 997 Ndeye Penda Ndiaye mention passable numéro 171 911 Ndaïmen Gueye mention passable lycée euh, fin de liste pour la liste des deux fils. Pour la série L2, résultat par ordre de mérite, liste des admis d'office. 172, 168, Tchernondong, mention assez bien. École privée, Kochubarma Promo. 172, Marie-Rose Ngone Faye, mention passable, lycée de Fayou. 172, 179, Amadou Fall Sen, mention passable, groupe scolaire Yatinga. Numéro 172, 182, Serigne Fallou passable, lycée de Fayou 2. 172 220 Ndaï Ouri Dieye mention passable lycée de Fayou 172 233 Aram Dramé mention passable lycée Amadou Ndak Matika lycée de Fayou 2 172 255 Kewé Mbaye mention passable lycée Amadou Ndak Seck 172 230 Adja Sokhna Yaté Diouf mention passable groupe scolaire Yatinga 172 205 Saba Diaby mention passable école privée Kocc Barma promo 172 129 Ousmane Diallo mention passable lycée de Fayou 172 237 Béatrice Thioro Ndiémé Faye mention passable école privée Kocc Barma promo 172 295 Calais Seine mention passable lycée Amadou Ndak Seck 172 250 Ndeye Sofietou Kane lycée de Fayou 2 172 133 Ibrahima Dieng mention passable lycée Amadou Ndak Seck 172 307 Massata Wagé mention passable lycée Amadou Ndak Seck 172 177 Anta Seck mention passable groupe scolaire Yatinga 172 213 Clarisse Diata mention passable lycée de Fayou 172 235 Marem Soda Fall mention passable groupe scolaire Yatinga 172 246 Ndeye Adama Gueye lycée de Fayou 2 fin de liste pour les adultes Dieye maa ngi université Cheikh Anta Diop de Dakar docteur Oumar Dieye di fa jàngale au département des lettres modernes faculté des lettres et sciences humaines euh, épreuve yi déroulé nañ ko ba pare comme ni ma ko waxee woon ça s'est bien passé amul woon benn couac ak benn difficulté maintenant pour série L prime 1 bi on avait cent trente candidats am nañ juróom-benn yoo xam ne ñoom dañoo absenté ci épreuve bi yëpp euh, ci L1 bi mën na noté ñeent ñoo xam ni admis nañ ak euh, ñeent fukk ak juróom benn muy yoo xam ni ñoom ñooy dem ci deuxième voie deuxième tour bi xaaj bu bi ci topp donc total bi mi ngi toll ci euh, ñaar mën naa wax ni cinquante candidats yoo xam ni daal téyeguñ leen nañ pour le moment ci wàllum baccalauréat bi ci série L prime 1 bi quatre-vingt la ñoo xam ni ñoom la ñoom lañu ajourné pour la série L2 cent quatre-vingt-treize candidats la fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo deful épreuve bi muy 17 euh, L2 bi mën nañ noté ñaar fukk yoo xam ne jàll nañ kenn koo xam ni ñu ngi koy félicité bu baax ak ñëpp sax ñi jàll ndax am na mention assez bien euh, l bi mu ngi toll ci 41 admissible total bi yëpp boo ko compté 61 la ak 132 yoo xam ne daal ñoom ñoo la ñu ajourné ñoom daal mën nañu wax ni bokkatuñ ci baccalauréat bi loolu mooy li nga xam ni daal mooy lu fës. ci série L prime ci série l bi parce que xaw naa takku quand même lim bi ci 132 ajournées sur 193 xaw naa bëri trop loolu daal la ñu mën a maanaam leeral ci bac bi pour le moment di xaaj nag di xaar nag deuxième tour bi incha allah.